yéen a ngi teewlu info 221 gannaaw ba ñu leen jaajëfalee mbokku internet info 221 dañuy wéy ak yéen ci xibaar yi jëm rek nag ci mbirum Mimi Touré di euh, moom bokk ci candidat yi nga xamante ni fas nañoo jongante ci falam njiitu 2024 euh, mu jiite sax parti bile di Mimi 2024 moom nag ab duel lay proposé diggante moom ak Amadou Ba waxtaan googu sax mu fas yi ne ci woote ay euh, taskatu xabaar yu nekk fii ci Sénégal waaye itam bitim réew ginnaaw ñaar fukki fan nag 24 heures ñu joxe Amadou Ba mu doon a ci bopp coalition Benno Bokk Yaakaar loole nag fas yéene nag mën a topp mais nekk sax ab njiitam réew mi ginnaaw ba nga xamante ne nag Aminata Touré dégg na lu nu mel dafay proposé nag ñu toog moom kii di Amadou Ba fas yéene waxtaan weccoonte xalaat waaye tamit débat la boo xamante ne nag lépp lu ci daal di addu moom Mimi Touré nag mi ngi proposé ab euh, proposition boobee sans délai débat moom ak ab jiwriñu Elimane di Amadou Ba waaye tamit nekkat candidat candidat bi nga xamante ne moom la président Macky Sall fal ngir mu daal di jiite coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi organiser nag ab conférence de presse boo xamante ni ah, fas yéene fas yéene nañ ci invité nag presse nationale ak internationale moom ex chef bu gouvernement mi ngi jàpp rek ne ancien premier ministre bala woon waaye tamit nekkat candidate ci présidentielle bu 2024 ngi invité nag waxtaan goo xamante ne daal bu soñoon kii di Amadou Ba bu ko daal di dàkkal waaye na ko ginnaaw disposition bi président de la république Macky Sall jël dem rek ñu waxtaanee ci idée ak programme bi nga xamante ne rawatina pratique yi nga xamante ne moom la Amadou Ba prétendre fas yéene jiite réewum Sénégal ba tey nag ñu desandi ci wàllu boobee wax nag ci mbirum euh, Fou Malade ñu gën ko xam nag ci euh, Malal Talla juróomi at gannaaw ba nga xamante ne génn benn yoon lii di ab clip depuis 2018 Ousseynou ak Assane Fou Malade nag jotul a génn benn album juróom ñaari at juróomi at loolee nag rappel bi lee jot na nag addu mu mel ni nag jamono ji yëngu ci wàllum activisme ak ay chronique formateur waaye tamit promoteur bu spectacle notamment ci yooyee la gën a focaliser wu gannaaw benn entretien bi nga xamante ne jot na ko sekk ak waa observateur Malal Talla mi ngi dellu ci ci état civil daal di expliquer lan moo waral nag boobee ba tey nag génnewut waaye nag mu mel ni mi ngi génn waat beneen nouvelle production boo xamante ne personnellement da ci war a làpp lu jëm ci ton waaye tamit jamono a yi ndaw yoo xamante ne ña nga ca géejuwaay yëngu ci wàllum hip hop loole nag euh, waaye tamit âge bi nga xamante ne mi ngi koy jël fas yéene ko daal di euh, partager expérience am ak ndaw yooyu nga xamante ne jamono ji ñoom ay rappeur rek la ñu bëgg a doon bokk na ci li nga xamante ne sax moo tax amatul jot ngir mën a génne lu jëm ci wàllum nag ab clip waaye tamit dafa bëgg a jàppale ndaw yooyu gunge leen waaye tamit transmettre leen nag euh, héritage yu baax boo xamante ne ci wàllum milieu hip hop ñoom duñ ci mës a am ab déception moom Malal Talla nag ci ab audio boo xamante ne daal jàpp na ne fas yéene nag génn ab euh, clip waaye nag euh, lu jëm ci loolee dina ci atuwaat ci noonu nag Fou Malade nee na nag lu jëm ci wàllum activiste bi mu yëngu loolee dafa bokk ci moom nee na ci ay fan yi nag boo mooy dina génn ab albom bu bees.